allo Idrissa Seck Idrissa Seck yow Ousmane Sonko wax na dëgg parce que yow ndekete bi nga da nga nangu li nga xamante ne bi moom la waxoon ah ba noppi bi nga nekk fa fekk mi xëdde ay bañ ak affaire yooyu ah. bi nga génnee da nga ne ma li ma wax ne ma moom nga ko wax ak li am dafa mel ni dafa waroo parce que Ousmane Sonko démb wax na am na loo xam ne leeral na ko si wàllu fajari laa ko déggee et alors. waaw salaamualeykum président naga def mbaay xangi ci jàmm <laughs> waaw maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm waaw Ousmane li mu wax de bon <laughs> xam nga rek <laughs> li ma la njëkk a wax moom booye boo jàpp ko te bañ a wéy ci waxi Ousmane parce que ay waxam moom wax dëgg fa yàlla na la ca tuuti doy dala leeru ci Idil dama la wax ne am looy dara aussi bi da moom nga expliqué demeewul da bi mu demee da li mu la wax dafa wax na la wax la loo xamante ne bi moom àndu si et puis man xaw ma ne da nga nekk foofu di comaytu di julli si mbedd meeg affaire yooyu ba noppi et puis yow ma waxoon ma yaag Ousmane yéen a ngi déggoo yéen a ngi waxtaan donc loolu mooy li nga xam ne moom nga waxoon parce que taxaw toog nga fii sax envoyé benn kii ojo daa di wax mel ni kuy wax ak Ousmane di envoyé di wax téléphone kon boobu ndekete ay dóor la nu mu demee noonu mooy li li Cheikh Yérim jàllale keroog. waa xam nga président bul ko déggee noonu <laughs> dégg nga boo ko seetee noonu rek mën ngaa juum xam nga Ousmane moom communication daf cee parce que gis nga ko li mu def rek xale yaa ngi xëy di fatt nit ñeeg beñe beeg dugg na fi génn na fi naan ba muy xëddee beñe xam nga naan manaan <laughs> xam nga li mu wax dafa reelu parce que bu waxee ne manaan fii laa ko yaakaaree woon xam nga loolu <laughs> président xam nga ni wax dëgg fa yàlla yow wóor na xam nga ni man de mbir yi demeewul noonu laataan may yegg si xëdd waaye loolu yëpp ci ko communication gis nga boo yaa ngi commencé di mbalak bëgg maa def comédien naan fii laa ko yaakaaree woon de te yëf yi demeewul do Ousmane daal boo boo jàpp ni day comédie rek waaw tey communiquer di comédie idi man nekkuma fi di wax naan ay de communiquer di comédie wala yu wala yu parce que aussi tamit euh, fi mu toll affaire bu doy na waar donc comme moom aussi def na affaire beñe bi nii mu def buzz yow lan lan nga xalaat ni moom laa war a def man parce que aussi tamit beñe bi war na moom moom ni mu defee nii buzz war naa mën a génn fenn Marème ak may wax sax est-ce que bu ma waxoon ne euh, laax laay xëddee su yaakaaroon ne xale yi dinañ challenge loolu laax bi u <laughs> président bul dugg ci loolu nag de <laughs> loolu de bu ci dugg kooku loolu moom bàyyi kooku Ousmane man de damay ragal nga ne laax laay xëddee sax <laughs> boo sàgganut jaaykatu soow yi fa la ñuy jaaree dootuñu jaayum soow mbirum laax moom bul ko tudd yow bàyyi kook loolu loolu mbiram la Ousmane bu wéqee réew mi wéq muy dawal welo réew mi dawal welo muy lekk beñe dugub réew mi lekk beñe dugub Ousmane lu mu def nit ñi def ko ti seeti wéq dégg nga xoolal am na xale yoo xam ne dañoo def ay tiset naan fii laa ko yaakaaree woon de di di saboote bàyyi leen ak saboote yi. c'est vrai li nga wax dëgg la parce que mën naa fi wax ne dama bëgg laax sax bu ko defee booy fi la ñuy jaaree sax bay bañ laax waaw donc loolu c'est vrai mais léegi ba d'accord naa pour génn si gaamu gaamam boobu nga xam ne si la ne mais yow loo may conseil lan laa lan laa war a def pour suul affaire bi pour suul bañ a dugub bi lan nga jakar ni mom la wara def pour sour bañ a dugub bi waaw xam nga li nga mën a def kañ lenn pour arrêter ko kañ léegi kañ ya boo génne benn décret képp koo xam ne saafati nga beñe dugub ya boo nga xam ni dañ lay considérer jaay ka tap rek léegi tey ñi nga xam ne ñi ngi koy jaay dakk ki nga xam ni day lekk beñëb dugub ñu considéré ko tuxkatab yàmba waaw loolu buñ ko waxee rek comme que moom dafa bëgg beñe dugub te procès mambay bi jàll na procès kii bi jàll na waaw bu ko defee mën nañu ko xañ inéligibilité am waaw ci li jëm ci wàllu élection yi ñu jëm jaaxelu ko ci beñe dugub ndaxte dangay seet la mu gën a bëgg nga jaare fa ba yàqal ko kom ko beñe dugub mo wax bëgg-bëggam nañ fa jaaré yakal ko mais idée tu penses que ni buñu défal lolu jaar ko ci beñe dugub daal di jël criminaliser beñe dugub c'est vrai on peut criminaliser le beñe dugub parce que je suis le président de la République c'est vrai ça c'est une idée il faut qu'on criminalise le beñe dugub bu ko ñu def précision si këram bu ñu fa fekkee fëriñ bu ñu xooyal comme jabar yi dañuy faral def beñe dugub bu ko defee ñu wax ne leen li c'est un crime il faut criminaliser bi ñu dugub boo nga xam dañ koy fixer benen ki bo xamante bi procès de beñe dugub loolu c'est très important idi sa xalaat rafet na wala voilà président <laughs> waaw gis nga criminaliser beñe dugub bu boobaa da ngay commencé wax ñi nga xam ni ñooy jaay ci rond point yeeg yooyu beñe dugub ñëpp ñu jaat leen di jàpp raafal leen waaw deuxième point bi nga daal di attaquer def perquisition këram waaw bu defee juge bindal la ko ñu càmbar ko soxlawut kenn di barikade këram parce que da lay wóor ne la ña ngay lakk saaf waaw parce que moom lay ndékkee bu ko defee waxtu ndékki rekk ñu ne jaga ci biir këram bu boobaa nga xamante ni bii dañ koy fekk ne beñe dugub criminalisé nañ ko waaw boo ko dugalee assemblée nationale ñu voté loi bi PDS a fa jàpp ci mbir mi combat bi bu ko defee ñu criminalisé beñe dugub comme comme moom loolu la gën a bëgg nga jaaree fa waaw loolu c'est très important jërëjëf idi mais mais idi nag li neex nag wax dëgg fa yàlla fii laa ko yaakaare <laughs> loolu moom vraiment ça m'a fait rire quoi Ousmane Sonko musuma ko ree mais mais nee la waxee kii bi nga ne fii laa ko yaakaare woon <laughs> loolu moom vraiment président daq dëgg nga ne ko fii laa ko yaakaare woon loolu moom ça m'a fait rigoler quoi bon depuis quelque temps bon reetaanuma di déglu Ousmane Sonko day métti parce que neexul si xol mais bi ne fii laa ko yaakaare woon foofu moom man ak Marème dañoo xalaañoo <laughs> waaw waaw même nday perte loolu la ko wax de ba waaw Ousmane moom xoromu na di <laughs> bi ne fii ko yaakaare woon <laughs> ndeysaan ak ni mu ko waxe waaye nag lépp daal lum ci mën a doon prési fi mu toll nii moom jublul ci li nga xam ni mooy liggéey bi parce que Ousmane Sonko moom dañ ko war a yemale il faut amener gars yi rapidement ñu lijeenti problème mu beñi dugub bi parce que buñu sétané ni nii cere dootu tam parce que lolu danger la cim réew fonda it mën na baña té am waaw yoyu yëpp ça risque de disparaître parce que boy yi bëgg nañu ñu jël fariñ bi yëpp tay gis nga lañ se doxut dara doxut te lolu yëpp dañ koy tek wané ni li ay argument la yoo xam ni bii eh, boulangerie yi doxuñu tey it boo seetee jaaykatu fonde yi lambale nañ boo seetee ñi doon jaay ton lambale nañ ana ñi doon jaay ndambe lambale nañ ñëpp ñi doon jaay spaghetti ak mayonnaise ñooñu it lambale nañ parce que ñëpp nga topp naan beñe dugub beñe dugub waaw ak di saboté naan fii laa ko yaakaaree woon Ok, c'est bien. Bon, tu as bien expliqué parce que euh, ça risque de créer des désordres et des équilibres. Parce que si tout le monde allait chercher le beignet double, le double n'existera plus. Ça, c'est un crime. Bon, on va criminaliser le beignet double. pour qu'on puisse euh, garder l'équilibre pour que Fondé puisse exister. Et oui, oui, c'est très important. Oui parce que le de va disparaître ce sont des plats ce sont des plats sénégalais menacer acte criminel parce que acte criminel imaginez ndaw si a gisut sunguf fu mu jëm te Ousmane Sonko la c'est donc criminel donc il faut criminaliser le de parce que ça risque de une déséquilibre bo xamné d'autres donc et aussi mburu dugub yooyu aussi tamit ay problème la yo xamné limu wax ni ming koy commencer indi j'ai constaté que ni aujourd'hui li ñu wax ne ñu mom lañu saaf si beñ dugub kenn mënu la wax kilo double la je vais parler avec le ministre du commerce on va aller tout ça avec le ministre de la justice pour régler ce problème de beñu dugub pour faire descendre si Ousmane Sonko parce que mo indi déséquilibre bi parce que jigen ñu bari tay waron nañu naan ruy parce que dañuy soog a wasin mais aussi gis nga le problème est là Sonko day indi désordre ci réew mi